di wax ne nag dama ñëwaat rek pour andiwaat sama xalaat ndax bi ma fiy jógee dama doon maa ngi toog ku di déglu Aïda Diallo ndax tànk mag jëkkëram toog jàpp njàmburam de li kenn du ma dégg ndax man wante ar bu jógatee ah commencé waat rek ñun ah man de ma commencé waat ma doore fa ma doore ma doore fa rek di wax ni que nag man Aida Diallo day taxul may wax jëm jëm jëmmu Aida Diallo ak turu Aida Diallo yitteelu ma jëfi Aida Diallo moo ma yitteel ci jëf ji laay wax mais waxuma ci jëmm ji waaw ah di wax ni nag taalibe yi ma leen di wax ni leen Aida Diallo de fa mu tegoon tànkam ba léegi ko fa tey jii la gën a dëgër tey la waalu gën a ay ndax dégg naa ni ndax man bi may fi bi may bi nga xamee ni ba mu mujjee def sama vidéo bi dama waxoon ne maa ngi toog di déglu Aida Diallo bu commencé rek ma commencé comme dafa commencé waat nag après ma commencé rek dégg naa def na ay cantam ca Madinatu Salaam ca këram te cant yooyu lan ko doon tere sa xalifa général de Mouride. cant yooyu la ko doon tere def na fa ay cantam ba nga fay nungu ay njébbal ci lu ngeen xam ak lu ngeen xamul waaw di wax ne sama vidéo bii ah na ko képp dégg képp kuy mburi na ko dégg képp ku bokk ci yoonu sëñ Tuubaa itam na ko dégg dina xam ne Aida Diallo fa mu tegoon tànkam fa la ko teg te du ko fa teggi nee na ndax ma ngay ca biir këram dafa def ay cant dafa ay taalibeem lañ ay taalibeem yi nga xam ne moom la ko sëñ bi doon tere ne ko jigéen yor ay taalibe ma nga continué waat ay taalibeem ay taalibeem dikk di ko sukkal di ko raamal di jébbalu ci moom jébbal ga ba léegi ma ngay continué ndax taalibe yaa ngay ñëw di indi seen ay am di jàmm ak seen i xarit muy nanguñ jébbal nanguwul nag benn télévision dugg fa boo xam ne bokkul ci moom ndax la muy nëbb lay bañ mu feeñ waaye nag Sénégal gii dafa nekk dëkk boo xam ni ah rëyul de lu fi waaye def le nay jàmm ak salaam looy bañ mu feeñ bu ko fi def waaw di wax ni démb damaa déglu benn satu maam Cheikh Ibra Fall mu wax ci cant gi nga xam ne ay dañ koy def ak fii am ay da teg tànkam nga xam ne nee du ko fi teggi ma dégg démb mu ciy wax am ci lu ko naqari lool may laaj nag ay Aida Diallo ba xam Aida jàlloo ah lan la lan lan la lan la ndax boo fekkente ni alal moo ko tax a jóg ah yaakaar naa ni am na ko bu fekkente ni pouvoir moo ko tax a jóg ah yaakaar naa am na pouvoir kon lan moo tax ay Aida Diallo ni yoonu sëñ Touba bii mu dugg sëñ Touba mii tere ko lim ko tere Aida Diallo ni fi mu teg tànkam du ko fi mas a teggi te damaa gisoon day ba ko xalifa bi waxee li mu ko wax mu dem ba ci këram mu ne day tuub jéggul xanaa tuub boobu dëggul woon ci moom tuub gam doon tuub ni tuub naa lépp lu sëñ bi bëgg maa nga ca lu mu tere bàyyi naa ko ah xanaa kon ay dajàllo yow xanaa dangaa tiitoon rek xanaa dangaa tiitoon moo taxan kon xanaa nga ñëw ba ci sa saal boobu ah nga wax la nga wax xanaa kon la nga wax yow gëmoo ko ndax bu ko fekkee da nga continuer di def say cant ah kon sëñ bi la nga xam ni moom la la doon tere yow xam nga ko bàyyiwoo ko léegi ay dajaal ma doon laaj ba xam lan la man de fi ne nii sama bopp daa sama bopp bi dafa ubbu lool ci yow lan la ah ay da fi nga teg sa tànk dëgër na de démb nag déglu naa sa tumaam Cheikh Ibra Fall bi dégg naa ko lool te li mu wax dugg na ma lool. beneen nag Aida mi ngi préparé wu pour dem Touba ma koy yëgal sama mbokk taalibe bi yépp leen wax ni leen Aida Diallo fi mu toll nii la mu waxoon ci vidéo boobu ni leen maa ngi bu gàmm gi passé ñu dem ci université bi ba loolu indi woon coow ba xalifa bi wax ko wax jur li mu ko wax ayda nag ma nga ci loolu léegi naa fi mu toll mi ngi préparé ak i taalibe bi pour dem Touba pour yóbbu pour yóbbu addiyaam ca ca ca. tabax ba tabaxu université ba may wax ñi nga xam ñoo nekk ci kar kar xalifa bi denda xalifa bi jige xalifa bi Aida Diallo li ko sëriñ bi doon tere tey la wàllu gën a aay kon ah, ngeen dimbali ñun taalibe yi nga xam ne ñun de lii fii rek lan mën a nekk di wax suñ kàddu àdduna di ko dégg waaye mënuñu jël mënuñ mënuñ jëf buñ mënoon jëf day kon mu neex waaye yéen yi nga xam ne jigéen ngeen xalifa bi te mën a jëf mën a empêcher Aida Diallo ba gis sëñ bi bu dikkee Touba bu indi addiyaam boobu ngallaawaay dimbali leen lu sarax leen ñu taalib yi Aida Diallo bu mos a gis sëñ bi naa da koy jox addiya ndax Aida Diallo bu ñëwee tuubaa jël addiya jox ko sëñ bi kat addiya ji ñu jël ko waa Touba jël addiya day mel ni kat kon ah lan doon tere Aida Diallo kon yaakaar naa ni tere ga xam naa xanaa kon eggul fa mu war a egg. ndax nit boo ko nee bàyyil mu ne duma bàyyi bu ñëwee di la jox waroo jël la muy lam lay jox ñaareel ba may wax ci soxna baali may wax ci soxna baali soxna baali Mbàkke soxna baali sëtu sëñ Tuubaa soxna baali ah man de dégg naa Aida jàlloo fi mu teg tànkam ci ñu ko jàppale ci nga bokk ñi tax ci ñi nga jàpp ci ci ñi jàppale Aida Diallo ba heure bu gis bëggee gis xalifa bi gis xalifa bi ci ñooñu nga bokk ndax man de seetaan naa la ci màggal gi dégg naa sax dama déggoon sax waaye gëmuma woon waaye seetaan naa la ci màggal gi bàyyi da indee nagam yi nga ne Aida sama rakk la ju sës ci man rekk comme Aida sa rakk la nag ju sës ci yow rek te bëgg ñëw ci sa yoonu maam bii ah bëgg ko tilimal liggéey mun taxaa bi nga xam ne sëñ Muntaxa mi ngi koy liggéey sëñ Tuubaa bëgg ko yàq te nga ne ci wetu sëñ Muntaxa war nga mën a wax Aïda Diallo dëgg ñëpp nag neen Aïda Diallo yaa nekk ci ginnaawam yaa koy jàppale wax nañ ko de ñu bari wax nañ ko soxna Baali Aïda Diallo doole ji mu am ak fit wi mu am yow soxna Baali yaa nekk ci ginnaaw soxna Aïda Diallo ndax man de fit yu Aïda Diallo am wax dëgg yàlla fit woo omu ko te keneen ku dul man tam amul fit woowu Aïda Diallo am te Aïda Diallo simple simple simple mënut am fit wi mu am kon bu fekkente ne yow yaa nekk ci ginnaaw Aïda Diallo ah dimbali nu ñun taalibe yi yow de sëtu sëñ Touba nga waaye ñun taalibe sëñ Touba la yu bëgg sëñ Touba ay taalibe sëñ Touba lan bëgg sëñ Touba ah ma doon ñaan rek nag sa naa soxna Baali ma la doon ñaan rek Mbacke Baali Aïssa ma lay ñaan. yow sëtu sëñ Tuubaa bi ma lay ñaan sëñ Muntaxaa de yoonam bii dafa fekk ay magam fekk fi ay ay waajuram ñu nekk ci yoon bi rafetal ko lool ba yoon bi ba mu yegsi tey kon yow mi nekk ci wetam ayam gii ah dimbali nu rek ngir yàlla ba ayum sëñ Muntaxaa Mbàkke gii fa ko ay waajuram yóbbu ay magam yóbbu ko mu yóbbu mu yóbbu ko mu yóbbu ko fu ko raw mu yóbbu fu ko raw ndax xalifa bu ne jaar na fi ca xalifa murit wante Aïda Diallo mii doole bi mu am ci ci yoonu Touba bii amul benn jigéen boo xam ne benn xalifa toog na fi ah lii am ci yoon bi am ci yoon bi amul benn xalifa boo xam ne toog na fi xalifa sëñ lii am ci yoon bi am ci yoon bi ah kon soxna Baali sëñ taxaa bu toogee toogal fi sëriñ Touba nga nekk ci wetam Aïda Diallo bu dee sa xarit la di sa rakk. mu bëgg a def ci yoonu sa yoonu maam bii loo xam ni àdduna kenn d'accord ci du murit bee ci d'accord du tiijaan bee ci du laayaan bee ci d'accord kon yow boo dee sëtu sëriñ Touba ah jige xalifa bi lool nekk ci wetam nga gis loo nga gis loo xam ni yow lii àdduna yépp nee na lii day tilimal day tilimal ay ay ay sëñ Muntaxa gi ah war nga war nga ca war nga ci war nga ci bay sa waar war nga ci bay sa waar bu baax a baax a baax a baax nga wax Aïda Diallo dëgg ah àdduna yi nag nee yaa ko jàppale àdduna nag nee na yow Aïda Diallo doole bi mu am yoonu murit bi doole bi mu am Touba ba heure bu bëggee gis seen xalifa général de murit gis ko heure bu ko waa këram bëggee gis gis ko yow yaa leen di xàllal yoon bi yaa leen di ubbil porte yi pour ñu ñëw ci xalifa bi ah àddunaa ko wax nag ah, bu ndee dal ci Aïda Diallo nag ndax Aïda Diallo mënut a yóbbu boppam ci kër xalifa général mënu fa yóbbu ay waa bu fa dee ñëw rek am na am na am na am na am na am na nday ndayam ju nekk ci ginnaaw ju jege xalifa bi lool nday ji nag nee na du kenn ku dul yow nee na du kenn ku dul yow yaay ubbil ay de jàllu ay bunt pour mu ñëw ci xalifa bi te waaj bi muy waaj di ñëw tuubaa pour indi àddiya ñu bari nee nan yow yaa nekk ci ginnaaw ah soxna Bali ñu lay ñaan rek rik Mbacke Balla Aysa ay sëñ Muntaxa Mbacke gii sàmmale ñu ko sàmmale ñu ko ba ni fi ay waajuram jaare mu rafet ay magam jaar fi mu rafet mu rafet lool mu gën a rafet gën a rafet mu gën a rafet gën a rafet ndax man sëñ Muntaxa de la mu wax moom wax na ko nee na lu dul yàlla ak yonante bi ak liggéeyu sëñ Tuubaa bi oma ci yàq oma ci defar ñi nga xam ne yéen a ko jigéen ak yéen ko mën a jàppale ndax moom mag la yéen ci seen bopp yéen a ko war a mën a jàppale ah may wax taalibe yi murit yi nag Aida Diallo ngi wàcc pour jëm Touba pour yóbbu àddiya ah àddiya ji nag bu ko Aida yóbboo Touba ba waa Touba jël ko ah yoon bi de man de tey bu boobaa maa ngi déglu nag maa ngi yor samay bët maa ngi yor samay nopp di déglu. bis bu Aïda Diallo jëlee alalam ji yóbbu ko tuubaa joxe ko ca Touba waa Touba jël alalu Aïda Diallo ji ma de keroog laay gëj wax ci ci internet bi pare naa ci dootuma ci waxati dootuma ci waxati dootuma ci waxati ah damay toog ci sama kër jàpp sama ñaam am sama xol bu naqari rek am sama xol bu naqari ndax nit boo ko ne bàyyil lu diine bëggul l'islam bëgg ko yoonu sëñ Touba bi bëgg ko moom mu nekk ci yoon bi bokk bokkul ci yoon bi même boo bokkul ci bi sax yaakaar naa ne war ngaa bëgg lu baax. même boo bokkul ci yoonu murit boroom këram moo ko ci boole dëgg la waaye même boo bokkul ci yoonu murit bi tam war ngaa mën a bëgg lu baax ndax lu toll ni xalifa sénéral di murit woo la woowaat la woowaat la tere la nga taxaw ni fi nga teg sa tànk foofu ngay teg doo ko fi teggi nga jëm tuub dugg biir Touba yëkkati alal di ko jox waa Touba ñu di ko jël ah kon nag wax ji day am lu muy nuróol wax ji dafay daal di am loo xam ne def lu muy nuróol parce yaakaar naa ni sëñ tuubaa liggéey na ci yoonam bi loo xam ni kenn mënu koo jox lu mu amul sëñ Touba kenn mënu koo jox lu mu amul xalifa général de Mouride ci ay milliards la toog képp ku bokk ci sëñ Touba ki ci gën a ñépp ci ay milliards lañ toog alal jaaxalu leen alal jaaxalu leen xam nga lan bëgg bu nu ko bu nu diglee ñu def bu nu teree ñu bàyyi. loolu ñoo moo leen yitteel waaye du yëkkati alal du leen jox soxna Bali may ñëwaat rekk la wax ni la yow xanaa déggoo waa kër Aïda Diallo yi li ñuy yekk xalifa général di murit ba barki démb jëwrinam bi ñuy wax maam Cheikh Sikar dal gi mu dal ci xalifa général di murit ak li mu ko wax képp kuy murit boo dégloo vidéo bu saxol day jeex dangay bëgg sax rey sax waa diaspora bi barki démb bu dee nga leen wax nee nañ Aïda Diallo la nga xam ne waa Touba sëti sëñ Touba yi ñoo koy def biir Touba Aïda Diallo xalaatul def ko biir Touba ndax sëti sëñ Touba yi ñoo ngi noonu biir Touba di fecc ak a sabaru ak a lëmbër yow xanaa sëñ sëñ soxna Baali déggoo loolu déggoo loolu xanaa soxna Baali Aïda Diallo mii bum la bum bum bum la jaral bum la jaral lenn ci àdduna Aïda Diallo mun la jox dara loo amul soxna Baali. Aïda Diallo mënula jox dara dara dara dara lu amul Aïda Diallo la jox fekk na sa maam jox la lu ñu sunu yoon bi sàmmal ñu li nga xam ne tam mooy xalifa général de Mouride bi toogaayam bi mu toog sàmmal ñu ko ñu ko mu ba mu ba bàyyi Aïda Diallo mi ngay jàppale di ko ubbil ay bunt di woo waa këram di la ñuy ñëw tuubaa di gis xalifa général de Mouride. bu fekkee danga nga koy def te àdduna yépp nee na da nga koy def bu fekkee yaa ngi koy def nga dimbali ni ñun murit yi nga xam ne doonu bëgg sëñ Tuubaa yow surtout sëñ Tuubaa nga de waaye ñu ay taalibe sëñ Tuubaa yu bëgg sañ Tuubaa lan te sëñ Tuubaa jaral ñu lu ne ci àdduna kon nga la nag soxna baal yi dama la koy ñaan rek pàkke bal ay sax ay de jàllo mii ah bu mu jar àddina di la jam bu ko ay de jàllo jar àdduna ay de jàllo jaru ko Aïda Diallo jarul àdduna di la jam te bu la ko jaral.